ëllëg ñoom ñooy président yi ëllëg ñooy ministre yi ñooy olema yi ñooy imam yi ñooy sëriñ si kon nag fi mu ne nii lañ leen war a préparer pour su ëllëgee ñu mën a jox seen faras yàlla wax na ci alquran ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp waxaat feneen ne wala taqtulu awlaadakum bu leen rey seen doom yi te eh, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati loolu itam yàlla wax na yooyu bu leen rey seen bopp bu leen rey seen doom yi bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne alkarale ko yéen loolu yëpp ñu ngi ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi am na benn docteur rek docteur yi arab ñu daal ko wax xaaris ibnu kulda as-saqafi duutoon jullit waaye yonent bi daf daa yónnee ci moom di ko laaj ay conseil médical di ko jëfandikoo ku feebar itam mu yónni la nga dem seeti ko ma ne ñun suñu temps du temps yi Maam Alaaji Abdoulaye Niass Maam Alaaji Abdoulaye Niass bàyyi Baye Niass 1922 la fi jógee feebar nañu indi docteur tubaab mu ne mukk man tubaab du laal suma yaram kooku du bàyyi bàyyi feebar na jël avion naaw dem ba France tubaab yi tiim ko di ko seet hmm? kon nag gannaaw ouverture boobu la suñu sëriñ am ñu itam noonu lañu war a nekke ak ñoom lu tax nag ngeen óolu tubaab yi ci garab ci garab yi ñu ñuy indil ku feebar rek tablette yi ngay jëfandikoo soit ma nga jële jóge Europe wala ma nga jógee Amérique wala lekk yii di jógee Amérique ak Europe lu tax ñu óolu koo lekk ku feebar fii te am xaalis da nga jël billet avion dem Europe faju ji wala nga dem Amérique lu tax ñu óolu leen ci loolu te óoluwuñ leen ci ñàkk suñ doom yi loolu mënta nekk waaye yàlla def tawfiq ci waxtaan wu ma leen sax su fekkee ne yàlla dafa wax ne kii dina am doom kan moo ko mën a tere yàlla dafa wax ci alquran ne walillahi mulku samawati wal ard yaxluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau zukura aw yuzawijuhum zukraanan wa inaasan wa yajcalu man yashaau aqiman su fekkee ne yàlla dafa wax ne kii dina am doom te yàlla dèjà wax na ne moom moom moom asamaan ak suuf dafay bind lu ko neex am na ñoo xam ne doom yu jigéen rek la leen may am na ñoo xam ne doom yu góor rek la leen may am na ñoo xam ne may na leen ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen am na ñoo xam ne mayut leen sax ñu jur dara su yàlla ne jiw dina judd kan moo ko war mën a fonk may leen ca xam naa benn jigéen ba ma fay nekk dem na def opération pour rey but si njuróom waaye ba mu biiraatee ñeenti doom la juróondoo waaw ca ca Égypte te te na bañ opéré ko ne rey nañ diir su yàlla ne diw dina juddu kan moo ko mën a tere mënta nekk dañu waxtaanee ba pare boroom xam-xam yaa ngi toog Issa Xaraa bi nga xam ne suñu bokk na ci milliardaires yi foofu juróom suñ suñ compté juróom ñetti nit ca la bokk ma nga toog xalifa yi ña nga toog ministre bi amee affaire religieuse mu ngi toog moom moo njëkk a jóg taxaw ne man nañ ñëw ñekk ma fii ma taxaw imaam suñu indiloon lu ñuy lor sax suñ dee nañu dugal aljanna ca boobu lañ commencé gouverneur bi ci boppam ne ñun ñëpp ameel nañ Cheikh Hassan Dukkal man joxe naa samay doom ñu ñàkk leen télévisé leen ñëpp di gis waaye taxul kenn nangu neexal naa nit ñi xaalis sax waaye kenn nangu imaam ñëw waxtaan benn yoon ci jumaa ji rek ñépp nangu maa ngi fàttaliku ay xaadir ñu ñëw di nuyoo ne ñu duñ ci jaan ay xaadir la waaye imaam su waxee jullit ñëpp la waxal ay chrétien ci kanu ne gannaaw imaam a ko wax ñun fi ne d'accord nañ bokkuñ bokkuñ diine ak ñoom waaye bañ déggee appel bi rek lañ d'accord ñoom itam loolu yëpp rek yàlla ñu ko may ci barke suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu wax naa leen ca ca discours ba ma def ak ñoom ne leen mille neuf cent